Karim xalifa Khalifa ba ñu oowee jala bu ñu ñëw ba tax am ñu leen mere ci loolu ba ñeen ñu dàq leen comme xalifa ci coalition bi bokkoon tey war nañu ñëw jomb ñëw di peeral ñoo ñu ñëwoon ci dialogue bi. di leen éliminer di lool éliminer loolu loolu c'est inélégant nañ bàyyi ñëpp bokk. ñoom Bassirou ñoom Ousmane Sonko fa mu nekk nii. si ñoom Cheikh Tidiane Dieye ñoom nga xam ne dañ ne mooy sama noonu man aw ma noonu. jàmm laa ko yéene. bëgg nga mu bokk. bu fekkoon ne remplir de conditions yi mais remplir ko. waaw mais ko ça c'est c'est mais xam nga boo remplir de conditions yi da ngay bokk. waaw mais na lu tax remplir conditions yi c'est un débat ma ne la du ma bokk. te ba remplir naa yëpp joxe naa parrainage ji ma laaj. waaw mais joxe naa parrainage yi ma laaj nañu ko pour le cas Ousmane Sonko on peut s'interroger aussi euh, sur les raisons qui font que remplirul conditions yi. man ñëwuma pour surtout kooku man li muy li muy euh, ay conditions am ko concerne man ça ne m'intéresse pas li m'intéresse daal mooy Sénégal man waaye yéen naa xam naa ni mais li ma la ñu ko mooy que war naa bokk wala bokk sama yoon nekku ci loolu loolu conseil constitutionnel moo ko war a tranché.